l'international sénégalais bi rek di wuyoo si turu Bouna saar moom Bouna Sarr sax nekkoon na fi foofee ca Marseille ginnaaw ba mu jugee Marseille nag ñëw ak uh, équipe bii di Bayern de Munich waaye naam sax moom bañoon na ak équipe nationale bu Sénégal jamono ji rek jël na li nga xamante ni mooy national bu nationalité bu équipe nationale bu Sénégal ngir uh, teewal li nga xamante ni mooy uh, sunu gaynde yi foofee ca Coupe d'Afrique des Nations moom latéral droit sénégalais boobu rek nekk foofee ca na moom nag wax na si li nga xamante ni mooy Euh, jour boobee rek Aliou Cissé di woote mu nekk jouru Marseille ñu koy woowee Boubacar kamara euh, moom nag euh, di l'international sénégalais Bouna Sarr nee na nag j'espère que il va venir avec l'équipe Sénégal moom nag nee na wax naag ki xamante ni mooy Boubacar Camara ngir mu ñëw jouer ak équipe nationale bu Sénégal ndaxte gis na ni kat qualité yi nga xamante ni moo nekk si a Camara bu ñëwee si milieu terrain bu équipe nationale bu Sénégal loolu nag apporte de plus le Bouna wax nee na nag yóon na ko euh, message rek yàggul dara pour mu ñëw jouer ak équipe nationale bu Sénégal ndaxte moom rek la ñuy xaar moom Bouna Sarr rek yemu fa benn yoon ndaxte nee na bu rek li nga xamante ni mooy les meilleurs joueurs africains yoo xamante ni dañoo yor origine sénégalaise dañoo war a ñooy jouer ak équipe nationale bu Sénégal ngir ñu mën a euh, doxal waaye nag ñu mën a nag gagné ay trophée continental ak équipe nationale bu Sénégal li nga xamante ni moom la euh, Bouna wax rek nee na ki nga xamante ni mooy Boubacar Camara nañ ko may benn temps de réflexion boo xamante ni euh, da koy apporter équipe nationale bu Sénégal waaye nag moom Boubacar Kamara mu doon joueur boo xamante ni mën-mënam kenn naataable ko muy yëngu foofee ca championnat bu France nekk foofee ca équipe bu ñu naan Marseille mu bokk sax jamono ji si joueur yi nga xamante ni euh, dañuy titulaire ak équipe nationale bu euh, ak équipe bu Marseille moom nag Boubacar Kamara Aliou Cissé sax di sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal rek mu ñëw Sénégal waaye nag dafa mel ne xel dalagum na ndaxte ki nga xamante ni euh, mooy Bouna Sarr dugg na ma moom mi nga xamante ni euh, bokkoon na ak Boubacar ak Camara foofee ca Marseille mu nekk benn équipe boo xamante ni ñoom ñaar rek joué nañ ko moom euh, moom Bouna Sarr sax nee na wax na waxtaan na seeg ki nga xamante ni mooy Edouard Mendy di gardien équipe nationale bu Sénégal ngir ñu jëw jëli ki nga xamante ni mooy Boubacar Camara ngir mu ñëw joué ak équipe nationale bu Sénégal ngir waajal li nga ni mooy Coupe d'Afrique des Nations bi ñu dëgmal ñu koy amalee foofee ca Cameroun